flash car bi pour moom moom flash car moom dañ ko war a bàyyi di continuer parce que nit ñi xam ni li ñuy war du dëgg dañuy dañuy ruube rek waruñu woon boole ak affaire yi daal dañoo waroon bàyyi ñu continuer flash car bi école bi di gën a wàcc waaw. Euh, pour kaawu flash car moom ki koy def amul importance parce que nekk fii di wax lu la wóorul wala di fanal ay nit amul importance mais pour le fait que ñi ñi def en direct Facebook de saaga parce que tamit. boo respecté wul sa parent waroo saaga parent jàmbur euh, yow par exemple yaa ngi yor sa maman sa yaay tre euh, di la yar ba nga màgg di saaga yaayu jàmbur loolu moom baaxul franchement ñiy def en direct dañoo bëgg euh, nekk ci publication yi di wax lu ñu amul importance parce que dugg ci Facebook seulement pour saaga parent jàmbur moom du idée bu baax franchement. yokk popularité rek. waaw. mais maanaam dafa nekk quoi bu ñu on est jeune. waaw il faut ñu jaar si loolu waaw te benn es pour passer ay message yooyu noonu quoi nekkul seulement pour foo nangam nii yooyu te benn es ne la siy fay soo atteindre benn stade nii mooy ay millions de vues yooyu ne la siy fay waaw la siy bëgg waaw. da ngay gis xale bu ndaw sax day yor téléphone yor WhatsApp yor Facebook yor Snapchat yor Instagram di ci def lu leen neex. te léegi sax am na benn site bu ma dégg temps yii paase ñu koy coow ci internet bi ñu ne moo génn temps yi ñu ngi tudd xam xaw ma flash flash ka xaw ma mm, waaw école am na fi mais kooku daa arrêté am na ku doon joxe ay information mais kooku après nga mujj yóbbu si directeur bu arrêté quoi loolu moom baaxul wax dëgg ah loolu moom gis nañ ko loolu presque presque ñàkk yar la ko da ngay sonal nit ñi di di intimider nit ñi loolu baaxul moom gis nañ ni du du affaire du affaire boo respecté woon sa morom doo ko def. parce que bëgg ay vie tamit warul nga yàq vie jàmbur. di publier lu la neex di di wax si nit ki bëgg daal xaabi suturaam parce que même moo ko xamalee leen waroo ko jàpp di ko publier si nit ci tout kon daal lool affaire immaturité la. na léegi nit ñi dañu ñàkk sutura ndax dañuy ñàkk dañuy dañuy dañuy weer nit ndax bëgg alal loolu moo fi am ci àdduna weer nit bi yëpp nag ñàkk bëgg alal la rek pour ak bëgg a siiw mais nit ki sutur moo jeex mais bu ñu delluwaatee ci suturaal doomu aadama yi. maanaam lépp dana jeex dana jeex. waaw loolu tamit dëgg la parce que ci fi nga mën a jaar pour siiw pour ci li nekk ci yoon nit ñi naw la nit lu bëgg la bari na baa mm-hmm. nga nekk ci internet def ci yoo xamante ni si ni mooy loolu nit ñi dañ koy bañ man nag ci li ma ciy blâmer des fois nga dégg ñu ne parents yi la des fois nga dégg ñu ne parents yi defuñu dara mais éducation de base daal lépp daal loo gis rek éducation de base la. waaw loolu kañ wax ma la yàq génération rek waaye loolu moom société ak àdduna yëpp la yàq ndaxte internet bi moom mun nga si def lu baax mun nga si def lu bon. waaye ni ma ko gisee daal mooy amatuñu repère tax xol xol yi ñoo tilim daal. ils sont pas conscients wala ñu nekk ñoo xam ne dañoo rancunier parce que bu fekkee yow nit ki bañ nga nga sa sutura wala ko def ñeneen nii et donc man daal sama xalaat mooy ñu koy def bu fekkee ñu ngi koy def ba tey nañ ko arrêté parce que mën na leen indil loo xam ne au final si ñoom rek lay këppuwaat et tout. mën nga nekk yow sa jëmm kese nga dugg. am loo wax wala loo def la nga xam ni dafay bàyyi da ko fay bàyyi soo ko fa bàyyee dinga meññ te soo meññee ñi nga meññ dañuy dund ci loolu ba ëllëg ñu ciy dund waaw lii olof yi di wax rek ak mag ñi di wax naan doom ndeyam da koy tiitaroo waaye doom tamit day tiitaroo waajuram waaw kum ci mënti doon rek sa ti sa sagu sa sagu moroom nga kon boo lu mu ci mënti doon rek ci boo ci tolloo nga tollu ci war koo mën a def war ngaa mën a xalaat jeexital ba